Touba ca kanam mi ngi fàttale jullit ñépp rawatina taalibe yi Serigne yi ñu gën a farlu ci dëkkub Serigne Touba bi gën a taxaw temm ci saafara jafe-jafe yi dëkk bi ndax lu mën a nekk la lu gox sori-sori lu mu ruqi-ruqi lu mu jege-jege si biir Touba Touba ca kanam mi ngi koy bàyyi xel te am yéene saafara seeni jafe-jafe ci kaw nag ñu gën a farlu bu baax ci ñaari téeméer yi di ko soñña ci biir kër yi ci quartier yi ci marché yi ci charrette yi ak oto yi ci mbootaay yi ci daayira yi ci jumaa yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew tànn bu wér ci dagg francs yi wala ci 12000 francs yi ku ko mën sax nag nga di si boole carte membre bi képp ku bëgg a yónnee sa addiya ci Touba ca kanam mën nga télécharger application Touba ca kanam ci Play Store wala Apple Store am na Wave am na Orange Money sax sa carte bancaire ak foo mën a nekk ci àdduna bi boo bëggee itam mën nga ko jaaralee ci numéro bii 78 544 33 33 am na Wave am na orange lépp ngir tuuba gën a jëm ca kanam di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yen ñi nga xam ne yéen a baaxoo di ànd ak groupe de communication bu Touba ca kanam ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar. xam ngeen ne fan yi àndoon nañu ak yéen ci naal yi nga xam ne Touba ca kanam naal na ko ci biir dëkk bu sell bi di Touba muy juróomi radier submersible ci ay yoon yoo xam ne ni c'est des routes à grande circulation radier bi ci gën a yaatu gën cee gudd def na presque lu toll ci deux cent mètres ak vingt centimètres de diamètre ba ci buntu jumaa ji muy ay liggéey yu mucc ayib yu am solo waaye tey ñu ànd ak commission réalisation mbokk yi ñëwaat ci beneen projet bu Touba ca kanam nekk di exécuter fii ci Ndamatu ti zone boo xam ne zone bu compliqué la ndax napp bi dafa affecté mbooleem ñi nga xam ne ñoo dëkk ci secteur bi mbokk yi ñoom dafa mel ne sax bu nawet bi jàllee ci li ñuy gën a am ay jafe-jafe ci génn ndox mi nga xam ne mu ngi ci seen biir kër yi tey bale ci suuf Touba ca kanam ànd ak ay ingénieur am ñëw étudier ko xool ko gis ne am na mbedd yoo xam ne bu ñu ko pavé dressé ko mun nañ drainer ndox mi mu dem ci réseau bi waaye it ñu téye circulation bi ba dem bi ak dikk bi mën a yàññ mbokk yi mooy pavé yi ngeen di gis muy lu am solo ndax yéenay Touba ca kanam ci dëkk bu sell bi di Touba mooy ñu dox ba suuf ñu taqale ko ak tali ak mbedd ndax mën naa nekk mbokk yi ndax weddi gis bokk ca dañuy jokkoo ak ingénieur bi nga xam ne mooy responsable des travaux ci Touba ca kanam un ingénieur qualifié di ànd ak ay pôle d'ingénieur yoo xam ne mboolem métier yi nga xam ne mooy yëngu ci wàllu pont ak chaussée ak ay hydraulicien ay topographe ñooy ñëw nag def liggéey bi nga xam ne nii bu noppee ci pose pavé ci lañu ñu toll fii mbokk yi ci ndaamaatu kon dañuy ànd ak yéen rek laaj ingénieur bi Omar mu expliquer ñu liggéey bu am solo bi nga xam ne nii Touba ca kanam mu ngi koy liggéey fii ci ndaamaatu sëñ bi ñu ngi lay ziare. ñu ngi ziare sëñ yaa ngi am jàmm. alhamdulilah mais macha allah. mel na ne liggéey bi am na solo fii beneen expérience te la ngir soulager population bi zone bi zone bi compliquée la ngeen tànn defar tali bi mais def fi ay pavé di leen sant bu baax si ñëw bi ngeen ñëw fii pour fësal liggéey bi nga xam ne waa commission réalisation ñu ngi koy liggéey si euh, programme opération defar yoon wi comme ni nga ko waxee suñu Cheikh donc euh, suñu yéene mooy fexe ba Touba euh, li si eh, ak Touba eh, ak li ko wër yëpp nekk eh, si environnement bu sain maanaam mbedd yoo xam ne si yu sell la yoo xam ne si dina mën dinañ si mën a jaar di dem di dëkk te du ñu am benn problème ginnaaw bi nga xam ne defar nañ tali ndaamaatu bi fii nag si lañu ñu zone bi tamit zone bu critique la ndax demoon na ba dëkkuwaay nit ñi màggal di tëj seen kër yi di dem feneen di fa màggalee maanaam kenn dëkk kër yu bëri xaw a gent ba léegi sax am na kër yoo xam ne kenn dëkkutu si ba léegi lépp li ko waral mooy problème yoon yu jafe ak euh, ndox mu xaw a bari ndax boo xoolee fii si Ndaamaatu day daanaka si point baawu dëkk bi di Touba te tamit euh, bu ñu defee étude hydrologique hydrologique yi euh, gis nañ que ni ndox yi jóge si boori daa Jolof bi daanaka fii lay dugg se jëm si foofu ñuy wax Kambia ak Kër Ñang voilà. ginnaaw loolu xam nga tali moom dafa am ay façon yu bëri ay la ñuy wax chaussée euh, rigide ak chaussée souple voilà te bu si nekk ak fan ka war a def waaw zone bii nga xam ni nag euh, mooy zone u Ndaamaatu di zone boo xam ne si euh, dafa presque inondable ndax niveau bi ni mu suufee ak yoonu ndox bi mu doon si lañ tànnee type de chaussée bii ñu fi def muy chaussée rigide en pavé nga xam ni def nañu fi programme nañ fi benn am nañ fi benn programme presque vingt et un mille mètres carrés de pavé euh, fi mu nekk nag ñu ngi si première phase bi si lañ toll nii euh, war a def euh, une première phase de dix mille mètres carrés bu ñu si jógee di def li si des ndànk-ndànk ba kër muy mat incha allah. ñaata mbedd ngeen ceinturer parce que mel na ni fii environnement bi yëpp ngeen bëgg a def ko ay pavé yu mel waaw fi mu nekk daanaka boo dee xool toll na si treize treize mbedd. ak yeneen ñaari mbedd yu xaw a gàtt waaye fi mu nekk li njëkk li sumb nii mooy ñeenti mbedd yu gën a am importance mooy yi nga xam ñoo si gën a gudd te tamit euh, ñoo am importance parce que day relier tali ba tali donc euh, dina désengorger maanaam dina féexal croisement yi genre tali yooyu bu ñu mbedd yooyu bu ñu ko defaree voilà si lañ jëlee initiative defar. Euh, tali en pavé yoo xam ne si dafa may bordure sur les flancs après am trottoir tamit en pavé moo xam day ñëw ba mbëkk si buntu kër yi. jàpp ngeen ne lii fii combien waaw délai bi c'est pour deux mois et demi xam naa bi ñu démarré léegi presque ay un mois lay war a toll euh, terrassement bi avancé na bu baax ba jiitu sax pavé bi liggéey pavé nag day loo xam ne si gaawul noonu ndax comme manuel la du loo xam ne si dafay gaaw mais terrassement bi quand presque ñeenti mbedd yi ñu war a liggéey yëpp. daanaka terrassé nañ ko à quatre pour cent donc euh, actuellement pose pavé yi mu ngi si euh, quarante pour cent moom mais mu ngi topp avec un bon rythme am naa fii ak màggal gi incha allah am nañu yéene mu ma mu mat ba ñu man ko ubbi incha allah. kon lii day wane ne mën naa nekk. Mhm. mbedd yi ci tubaay yëpp war nañ ko mën a def nii. Mhm. ba dëgg-dëgg ñu tàqale. Mhm. moo xam sunu tali yi. moo xam sunu pavé yi. ak suuf si nga xam ne gàllankoor lay gën a indi. ci li nga xam ne mooy yoon comme ni ñu ko waxee rek rien n'est impossible tout est la la vie donc euh, lépp loo gis rek solution ngay wut rek pour man ko réaliser donc euh, comme ni ñu ko yéenee donc mbedd yi si Touba yëpp am nañ yéene defar ko ba mu mel nii mbedd yi voilà euh, yi nga xam ne day taa ak yi nga xam ay jafe-jafe fi fa ndox war di jaar ak fi ndox war jaar ak yooyu yëpp bu su nekk am na solution boo xam ne si moo fa adapté te buñ sa yeggee incha allah dañoon xool li nga xam ne moomul méngool ñu euh, euh, étudier ko programmer ko réaliser ko foofu incha allah. rajo yi. Mhm. tali yi. Mhm. pavé yi. Mhm. mais chantier yi yaatu naa. ma wax ci Touba ca kanam. Touba ca waaw yooyu lépp yéen ji moo ko waral rek parce que vraiment comme murid yëpp ku sañoon Touba comme ni ko sëñ bi ñaanee mu mel noonu voilà moo tax yéen ji dafa ëpp maanaam euh, jëf ji looloo tax. yaatuwaay beeg sumbu yi mel ni lu bari alors que yéen du du asaka sax yéen a ji daal. li am solo aussi mais ay techniciens aussi ñooy nekk ci suufu projet bi. Mhm. avant pendant ak après lu ñu mënta def lu ñu mënta def tamit y a des études préliminaires bu laa ji étude hydraulique étude béton armé voilà dimensionnement soso yi yëpp dañ koy def parce que lii ngay gis nii ñuy def nii ça fait un an ñu koy étudier ah. étudier nañ ko un an mm. te étude technique bi day jàll après étude financière bi ñëw. Mm. voilà nga xam ne même technicien yi ñun ingénieur bu ñu d' accordee sax mhm. am na fu muy jaar foo xam bu jaaree finance finance mën nañ d' mën nañ bañ a eh d' accord donc y a un processus da xam euh, nga xayma ko c'est important voilà phase phase phase phase étude bi moom vraiment dañuy toog def les levées nécessaires mhm. voilà def études yi yëpp li ñu war a def mhm. bu ñu paree euh, proposer ko avec un budget voilà su ko defee ak un délai euh, prévisionnel bu ko defee ñu mën a trancher au niveau du commité directeur balaa ñu koy réaliser. et puis bi aussi day mujj am euh, drainage naturel des eaux vers oh. le réseau euh, existant. existant c'est ça parce que en fait bi boo xoolee même avant ñu def pavé yi yoonu ndox la woon donc ndox mi daan daw di dem donc loolu occasion la boo xam ne si yow boo defar sa doo ko doo ko yàq. da nga ko exploité voilà donc da ngay donc pente boobu da nga koy utiliser bu ko defee yow da ngay def nga drainage drainage naturel euh, de ta chaussée bu ko defee même regard yi ñuy def temporairement euh, le long de la route euh, day permettre ñi nga xam ni ñoo nga seen kii kër yi ñu ngi taa te mënuñ ko tali bi sut leen buñ pompé mën ko dugal si regard yooyu mu dem si réseau bi mais nag ñu ngi leen di ñaan ñuy pompé ndoxu taw bi rek quand même. jëf mbokk yi. tey groupe de communication bu Touba ca kanam lii lañ leen indil ngir wan leen ñaar téeméer yi nga xam ne Touba ca kanam mu ngi koy laaj murit yi ci lu mel nii la jëm mbokk yi ñaar téeméer yu barkee la nga ni mbokk yi maa ngi leen wax sànq te gis ngeen ko lu toll ci juróomi rajo submersible ay rajo de la dernière génération ak jumtukaay yoo xam ne nii jumtukaay yu mucc kaay abi la ak ay techniciens yu qualifiés ñu cerner juróom axe yoo xam ne nii c'est des axes de route à grande circulation mbokk yi waaye tey gis ngeen fii ñu tàbbi ci ndaamaatu ñu nekk ci pause pavé ci lu toll ci treize mbedd duñ ci yem dem ay bordure te ma leen di fàttali ni ndaamaatu gi un kilomètre et quelques linéaire romb ci hôpitalu ndaamaatu bi toog na juróomi at ak lu ko ëpp kenn jaaru fii Touba ca moo ñëw defar ko enrobé ko def fi ay trottoir def fi garab def fi éclairage public tey ñu ñëwaat ci beneen secteur di fa def pavé li dafay wane ne ñaari téeméer yi feek mi ngi ñëw nu ngeen bëgg Touba mel ni lu mën a nekk la mbokk yi waaye ñaari million ngu brut lii Touba di def su fekkoon ne dana am ñaari milliards par weer xam ngeen ne solution baa ngi ni mbokk yi laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam mbokk yi feek seeni ñaar téeméer téeméeri ngi ñëw ñuy jéem di indi ay saafara ci jafe-jafe yi dëkk bu sell bii di Touba mën naa nekk de ndax impossible n'est pas Serigne Touba impossible n'est pas Mouride jërëjëf Serigne Touba. Touba ca ñi ngi fàttale jullit ñépp rawatina taalibe yi Serigne yi ñu gën a farlu ci dëkku Serigne Touba bi gën a taxaw temm ci saafara jafe-jafe yi dëkk bi ndax lu mën a nekk la lu gox sori-sori lu mu ruqi-ruqi lu mu jege-jege si biir Touba tuubaa ca kanam mi ngi koy bàyyi xel te am yéene saafara seeni jafe-jafe ci kaw nag ñu gën a farlu bu baax ci ñaari téeméer yi di ko soñña ci biir kër yi ci quartier yi ci marché yi ci charrette yi ak oto yi ci mbootaay yi ci daayira yi ci jumaa yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew tànn bu wér ci dagg francs yi wala ci 12000 francs yi ku ko mën sax nag nga di si boole carte membre bi képp ku bëgg yóndee sa addiya ci Touba ca kanam mën nga télécharger application Touba ca kanam ci Play Store wala Apple Store am na Wave am na Orange Money sax sa carte bancaire ak foo mën a nekk ci àdduna bi boo bëggee itam mën nga ko jaaralee ci numéro bii 78 544 33 33 am na Wave am lépp ngir tuubaa gën a jëm ca kanam di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool.